voilà mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci benn vidéo boo xam vidéo de formation lay doon parce que xam ngeen ne dañoo waroon a former sunu représentant bureau yi te fii ci Mbacké am nañ plus de 800 bureaux donc 800 personnes pour ñu former leen du yomb moo tax ñu dox vidéo bi pour nos représentants de bureau élection bu am solo ci leen jëm te pour ñu gagné ko il faut représentant de bureau yi def liggéey bi mucc ayib ci jour élection yi li nga xamante ni nag mooy rôle représentant de bureau ci leen bëgg ñëw ci formation bi kon vidéo bi c'est destiné aux représentants de bureau mooy les 16 ans bi li mu war a njëkk a xam mooy fan mooy lieu de vote kon war na am en contact ak le mandataire mandataire bi moom mooy deuxième échelon bi parce que travail de chaîne la ki nekk ci base bi mooy le représentant de bureau mooy siège ci bureau bi bu ci jógee mu dem ci mandataire bi kon mandataire bi war na xamante bu baax ak représentant bi informer ko ne ko lieu tel nga jëm bureau tel su mënee sax dem fa la veille vérifier site bi vérifier bureau bi ba xàmmi ko li ci des nag mooy jour élection parce que liggéey bi ci jour élection yi lay am jour élection le représentant war na faa ñëw une temps avant démarrage bureau bi moo koy permettre mu jëlee devant su ñëwee ñaar mooy am soit benn circulaire boo xam turam ak santa santama nga fa wala li nga xamante ne nii mooy bu buñ ko jox mu ñëw présenter ko le président du bureau bu ñëwee day nuyoo cordialement amicalement présenté wu wane notification bi wala circulaire bi ne man maa fi nekk ñu xamal ko mën nga dugg ci bureau bi. léegi nag ñu wan leen bureau bi ni muy demee ak le représentant bu ñëwee lan la war a fekk 7 heures président bureau bi di ko def loolu lañ leen di wan nii. kii ngeen gis nag muy ñëw mooy le représentant moo ñu représenté coalition Diomaye président ci bureau de vote bi su ñëwee 7 war na ko fekk sur place bu ñëwee dana fekk bureau bi. mu identifier bureau xam ne bureau bii la war a siéger supposons ñu ne bureau 1 lieu de vote Darou Khoudoss université Darou Khoudoss su ñëwee dana fekk président bi di installer matériel moo tax teela a ñëw gi baax mu ñëw nuyoo cordialement Athio. maaleykum salaam. très bien. sëñ bi nooy fay. Président. waaw waaw jël jëlal siis nga toog ne kee sa naataango la moom moo teewal. Cheikh Diagne Diagne kii kii mooy assesseur bi. kii mooy SEDA bi. waaw kii teewal waa toog ñii mooy ñi nga xam ne yéen bokk bureau bi. kon ngaa jël toog ne. voilà teel a ñëw gi lii lay jariñ nga fekke ñuy installé matériel électoral bi voilà matériel électoral baa ngi nii bu la neexee yow sa jot bu la ko mayee ndax Sénégal lépp teraanga la nga jàpp ci liggéey bi jàpp leen ci installation bureau bi Mansour mhm. xam nga ne élection bi ñu jëm 19 candidats la kon boo teel te ñëw maanaam sax doo am place boo toog moo tax teel a ñëw gi def ci am solo voilà. li nga xamante ni nag bëgg naa koo leeral ki nga xam ne mooy suñu présentant mooy war na xam le matériel électoral bi mu war a fekk ci biro bi matériel électoral bokk na ci les bulletins surtout yow bulletin bi la concerné mooy bulletin Diomaye boo ñëwee pile bi war naa tolloog yeneen pile yi bu manqué wala yeneen yi ëpp ko war nga insérer pour ñu tolloo war nga gis tamit enveloppe bi ñuy voté. mais loolu dong du matériel bi matériel électoral bi urne ci la bokk isoloir ci la bokk list représentant bi nga xamante ne ni mooy list officielle candidat yi ci la bokk arrêté bi nga xam ak dëkk arrêté bi ak décret bi convoqué corps électoral bi ci la bokk mais également matériel yi nga xamante ne mooy cachet original cachet votant dateur encre ak encre indélébile yooyu ci matériel électoral bi la bokk am na cire ak baton yi nga xamante ne ni moom la ñuy ficeler dinañ ci ñëw bu ñu dépouiller ba pare mais am na feuille de dépouillement ak procès verbal ak euh, feuille bi nga xam ne mooy proclamation des résultats loolu lépp matériel la. kon yow bi nga xam ne yaa ñu représenté boo ñëwee war nga vérifier loolu parce que matériel bu bu manqué day indi sooxe ci processus électoral bi kon yow en tant que sunu représentant lii ma lim ci matériel dina leen ko dugalal ci groupe WhatsApp bi ngeen kon ko xàmmi war ndax moo ngi sur place wala déet su lépp matin nag nga ñëw toog président bureau bi day yëkkati urne bi ba ñëpp gis dara nekku ci yow nga xool mu teg sele ko léegi nag huit heures fekkee huit heures vote bi commencé ñu note ko quelque part exact comme ni ko président di defee voilà après léegi nag huit heures mu commencé woo les électeurs ñu commencé ñëw procéder ci vote bi voilà bu loolu jàllee huit jotee président mën na voté wet vote bi commencé na li ma bëgg a leeral foofu nag suñu représentant bureau bi pour mu fonctionner il faut ñetti ñi au moins ñaar ñëw tënku nag ci président wala assesseur wala secrétaire mais ñetti membre yi représentant administration au moins ñaare nañ fa teew ak également la représentant de SEDA bu ñu teewee bureau bi mën a démarrer mais bu kenn manqué bureau bi mënul démarrer war nga ko mën a signaler parce que bureau mënut a fonctionner sans matériel bi tamit ni ma mat jot na président woote ana électeur bi mu ñëw voté si. électeur mu ngi nii di ñëw bu ñëwee bu ñëwee day nuyoo dem directement ci président wan ko carte d'identité am carte xool président bi day xool carte d'identité xam ne fii la war a voté mu xool ay loxoom xam ne mësul voté fenn mu doom ñu dem ci procédé nag vérifier liste trom ci liste électorale bi. Cheikh Seck ñu vérifier trom ba gis ko. Ah. très bien. seex boobaa moom it day ñëw. fii tamit ñu leeral si waa SEDA. waa SEDA day vérifier ndax seex également moo ngi ci liste bi. très bien léegi seex daal di mën a ñëw jël liste bulletin candidat yi mu war a woteel fii tamit code électoral ko day jël yëpp bu du jël benn rek bàyyi day jël yëpp. voilà mu jël jël jël enveloppe après mu dem ci isoloir bi vote bi secret la moo tax il faut mu dem ci isoloir bi tànn ki muy tànn fii tamit ñu leeral que ne coalition lañ wax Diomaye président loo bëgg-bëgg Diomaye benn bulletin Diomaye ngay jël soo jëlee fukki bulletin Diomaye dugal ko benn la ñuy compter mais bis boo bëggee jël Diomaye ak Cheikh Tidiane Dièye boole leen bulletin ñu lay doon kon mennum Diomaye rek nga mën a jël dem acca nga ñëw nga dugal ci biir urne bi fii tamit am nañ choix président Birame mën nañu ko cappal sa loxo ci enveloppe bi laata ngay dugal wala bu dugalee pare mën na ko cappal mais dans tous les cas loxo bi war na ko dugal ci voilà après mu dem signe mu dem ci Sédar également signe yow période bi yow suñu présentant li ngay def mooy nga xool ndax lii lépp mu ngi koy def en même temps nga ko ne benn nit voté na ñu delloo ko pièce mu génn dem moom votam mat na voilà léegi lii mooy processus bi ñii lay démarrer huit heures ba dix huit heures warul am arrêt tant que bulletin yi manqué wut wala bu amul benn incident nii mooy vote bi yow su représentant ngay contrôler ndax nii mu demee ni lay demee su bëggee génn te dugalul encre nga signalé ko président bureau bi ci njëkk mais également su fekkente ne également dafa bëgg a génn te signé fa lañu ci récip bi nga ne président kii signé wul ñu woo ko mu ñëw signé ndax du mën naa am fàtte mën naa am. lii mooy suñu rôle représentant huit heures ba dix huit bu dix huit heures nag ñu doog a dem ci li ñuy wax dépouillement bu dix huit heures jotee le président du bureau sañ am na sañ-sañu xool ci ñi nga xam ñoo nekk ci liste bi mu yokki trente minutes mais benn yoon la ko mën a def woo leen may leen ñu voté à part loolu préfet wala gouverneur wala sous préfet am na droit génn arrêté yokk vote bi mais loolu cas yu lay doon boo mu benn incident di su dañuy arrêté vote bi léegi nag ñu dem ci li ñuy wax dépouillement dépouillement ci la ñuy ñëw posons 19 candidats yëpp ku nekk ñu xam say voix ni mu toll parce que lépp day nekk ci liste de feuille feuille de déploiement bi ñu waxoon fii feuille bi na ko war ni paree nag ci la ñuy ñëw remplir PV yi PV yi bu fekkente ne ñoom bëgg na noppal seen liggéey mënoon ko remplir ci journée bi avant ñuy ñëw parce que fii day xat parce que 18 heures la te balaa 19 heures war na nopp réclame résultat yi dans ñu ñëw nag ci passe bi nga xamante ne nii moo nekk nii PV bi en bi lii moo ciy nekk danañ ci am commune de Touba Mosquée lieu de vote bi ñu préciser ko Daaru université Daaru Khoudoss bureau de vote 27 le nom du président de l' assesseur et de secrétaire après fii dana am candidat yi ak coalition yi par exemple Aliou Mamadou Dia moo jiitu certainement fekk liste alphabétique la Mame Boye Diao Cheikh Tidiane Dieye Boubacar Camara et cetera. ku ci nekk également sa représentant ñu bindu turam fii signé ko léegi nag ci ginnaaw PV bi avant ñu dem ci ginnaaw war na noo bind comme ni ma ko waxoon bu ñu xëyee le matin bu ñu commencé ay huit mu coché ko bu ñu arrêté dix mu marqué ko parce que vote bi ak heure bi ñu ko terminé da ko war a marqué ci PV bi. léegi nag fii la ñuy def résultat yi fii nii avant ñu def résultat bi dina bind le nombre d' inscrits par exemple ñu ne bureau 27 am na 580 inscrits ñoo fi war a voté. le nombre de votants moo ñuy voté ci jour bi ñu ne cent soixante cent huit ñoo voté ñu bind ko ci cent huit yooyu noonu am na fi deux supposons dina ëpp deux certainement parce que trois membres du bureau yi bu ñu voté yi bu ñu ak le représentant sa ñëpp fii la ñuy seen biir parce que mënuñu dem di voté du ñëwaat ñooñu la ñu le nombre de votants hors bureau originel ñooñu noonu dañ leen xam par exemple ñu ne supposons 23 parce a doon les trois les 19 représentants représentant de le nombre bulletin trouvé dans l'urne mooy li ma waxoon léegi bulletin yi trouvé dans l'urne bi waroonoo xam ñaata la normalement daa war a méngoo lee fekkee vote bi jaar na yoon ñu bind ko te lépp luñ bi nañ koy bind lettre bind ko en chiffre après ñu ñëw ci le nombre de bulletins nuls bulletin nul expliqué naa ko mooy bulletin boo xam dafa am ñaari candidats yu waroo wala bulletin boo xam dañ ko fekk nekkul ci enveloppe wala enveloppe buñ collé loolu bulletin nul la mais bi fekkee nag da ngaa xër bëgg jomaay dafa noonu ñaari jomaay loolu du doon bulletin nul mais benn voix lañ koy compté après ñu ñëw ci surface valablement exprimée loolu soustraction la dana jël le nombre de votants mooy le nombre de bulletins nuls le reste mooy nekk le le nombre de surface valablement exprimée supposons bu 200 voté ñu am 2 bulletins nuls kon 198 mooy le nombre de surface valablement exprimée léegi nag ñu dem ci ku nekk la nga am supposons ñu ne bureau bii ñu nekk nii par exemple ñu def simulation bi ñu ne Diomaye am na sur 200 Diomaye am na 180 votants Cheikh Tidiane Dieye am na dix votants Amadou Ba am na un votant ku nekk dañ lay bindal ñu bind ko ñu bind ko en lettres et en chiffres yow mi nga xam ne yaa ñu représenté jour boobaa PV bii nii nga xam ne mooy jëm SEDA mooy jëm ci commission nationale de commission départementale de recensement de vote war nga ko xool nag yow ndax c'est bien rempli d'abord en tête bi en même temps ndax yow 180 yi nga xam ne Diomaye am na ko est-ce que c'est bien mentionné mais également est-ce que am na signature signature signature le président de bureau le secrétaire l'assesseur ak cachet SEDA et bu boobaa am na beneen cachet bu boo xam ne moo bokk ci matériel bi ñu bind ko ñu tudd ko cachet original dañ ko ci kase yow nga doog signé kon yow bala ngaa signé war nga xool vérifier données yi. ak c'est bien renseigné ak données yi c'est bien mentionné moo méngoog li am en même temps ndax am na cachet original nga signé soo ko signé enveloppe boobu noonu bi procès verbal boobu noonu moom may def ci enveloppe bi dem tribunal départemental foofu noonee dana am ci matériel électoral bi ma waxoon léegi muy siir bi ak baton ak ak ak bi dañ koy takk mu wër ñu jël siir bi taal parce que matériel normal war na am almet ñu taal ruyal ba ruy ñu takk kose sondeel lay doon waaw surbit comme genre sondeel yoon ñu réel ko takk ci kase dóor ci am na beneen kase boo xamante ni nii ci lañ ko dóor ci kaw en lay doon boobu noonu nga xool ndax président bi takk na ko ci loxo agent assermenté agent assermenté bi su boobu mën na nekk policier wala gendarme wala militaire ci loxoom la koy teg kooku moo ko yóbbu léegi nag mu des yeneen PV yi yëpp nii lay mel nee naa PV yi benn lay doon mais PV yi dañ ci def cachet copie yow PV bi la jox yow tamit fexeel ba mu am renseignement yëpp en même temps fexeel ba président signé SEDA kasa SEDA nekk ci assesseur secrétaire signé les représentants de parti signé yow nga am nga PV bu baax PV boobu noonu le plus rapidement possible nga jox ko sa mandataire yow sa jour boobu sa jaan wàcc na loolu mooy sa rôle ci jour élection yi li ma ci yokkaat terminé ko mooy incident bul ko provoqué te daw ko loo ko mën a daw ndax élection bi suñu élection dañ ko war a gagné comme bu yàqul ñu la yàqul ku lay provoqué jim ko daw du bureau de vote mooy kan mooy le président du bureau moindre incident signalé ko ngeen waxtaane ko loolu laa mënti lu may wax yow sunu représentant soo amee looy leerlu mën ko posé. waaw jërëjëf Pape Moussa euh, ci formation bi nga xam ne moom nga doon defal tey en tant que représentant xanaa li ma ci kii rek mooy ay baati wolof yu gën a kii par exemple dégg naa nga wax lu mel ni mentionné. loolu ci man mi déggul tuwaab dëgg mooy mu wóor ma bind nañ bind nañ bind nañ résultat yi nga xam ne moom la jomaay am ci ci ci kii bi mhm. beneen bi si topp de wax nga ko ay yoon yoon mooy chiffre ak lettre xëy na man mi nga xam ne jànguma tubaab peut-être mën naa am lettre bi bu ma ko déggee damay xalaat ne lettre bi ñu bind la bu ñu war a envoyé fekk lettre mooy bind comme ni ñuy bindee tur ak sant bu ñu ko bindee noonu xaa kii nombre bi dañ ko war a bind comme ni ñuy bindee tur ak sant waaye dañ ko war a bind tamit comme ni ñuy bindee chiffre mooy comme ni ñu bindee 1 2 3 waaw comme ni ñu bindee numéro téléphone waaw yooyu ñu ñu bàyyi xel xam ne li nga xam ne moom mooy PV bii ñu ma jox PV bii ñu ma jox li ma am war nañ koo bind ci ni ñuy bindee tur ak sant waaye war nañ ko bind tamit comme ni ñuy bindee numéro téléphone bu dee 180 voix dañu war a bind 1 8 1 ma xam eh, muy 181. waaye noonu lañ ko war bind tamit par par lettre mooy ni ñuy bind ak sant chiffre yooyu ñu ñu kii ko kon defe naa ne euh, yenn yi ci topp xañ na sama naataagoo bi mën naa moom itam xañ na am na ñu comprendre moom itam moom moo représenté euh, Cheikh Cheikh Tidiane Dieye euh, bëgg naa laaj tamit bi moom lan mooy cëram ci mbir mi ak yan lan laa ko lan laa ko war a lan la fi war a jëriñ daal man bu ma amee lu ma metti loo xam ne wax naa président bi sottiwut ndax moom ban àq daal laa am ci moom pour pour moom toogaayam lan la may jëriñ man man en tant que représentant waaw question boobu laa amoon pour la ko. waaw question bi nga wax lu am solo la muy SEDA SEDA mooy commission nationale autonome départementale. bu dee Sénat bu dee au niveau national ñoom dañoo tëdd njaaxaanaa ñoo fi teewal ñëpp dañu superviser vote bi bu incidence amee ñoom arbitre la ñuy doon comme li ma wax incident boo ñëwee fekk yow say bulletin manqué am nga droit ñu mu yokk ko su bañee Sénat moo leen di moo leen di atte moom day wax président bureau bi yokk ko ndax am na ci droit lii la code électoral bi may bu fekkee le président bureau daf ko bëgg a salfaañe représentant Sénat bi mën a intervenir mais en même temps PV yi ñu leen di jox moom da ko war a fekkee signé ko parce que moom témoin la et puis la ci élection yi n'est-ce pas donc ku war a jox cër la ku bokk ci processus électoral bi te membre bureau la day siège comme ñëpp. Euh, voilà. ni mu la ko laajee ci moom SEDA noonu laa ko laajee ci le secrétaire moom itam lan mooy rôle man ban acte la ma amee moom. voilà élection administration moo koy organiser. ñi ministère de l' intérieur ñi ministère de la intérieur lañ fi représenté sous préfecture moo leen di jël. daanaam le président du bureau le secrétaire moo koy bindal assesseur moo leen di accompagner ñooñu noonu président bi moom mooy président bureau bi mooy qui est l' office du bureau le policier du bureau bu incident amee am na droit dàq nit ci bureau bi par exemple yow boo ñëwee représentant benn Bokk Yaakaar nga jaayu réewande mën na la dàq ci kanamu SEDA. bu fekkee da nga jalgati yoon te boobaa bu koy def day woo agent assermenté comme ni ma ko wax mi police wala gendarme mu ñëw génn ko bureau bi su boobaa suppléant mën na ñëw boo mul suppléant ñoom seen problème la kooku noonu moom buy ak buy jël décision ci bureau bi bu amee ami également moo koy jël mais lu mu ci mën di doon da koy diisoo ak yéen ndaxte yéen a bokk bureau bi diisoo ko également ak les représentants de SEDA. est-ce que le secrétaire amul obligation bu fekkee ne man en tant que représentant. mënuma dugg est-ce que bien sûr le secrétaire moo war a sax remplir PV yëpp mais comme Sénégal réewu teranga la soo jànga yow représentant bi mën nga ko jàppale ci remplir ko PV surtout mu war a remplir ay 20 PV parce que bu ñëpp ñëwee ku nekk war nga am PV ak PV SEDA ak PV représentant bi ak PV bi dem tribunal ak préfecture kon PV yooyu yëpp noonu bu remplir ko day jafe ci moom donc soo ko mënee jàppale soo ko mënee baax na mais obligation parce que loolu mooy moom secrétaire bi da ko war def par la force remplir le PV jox la ko parce que sa PV bi moo la fa indi te moom mooy indi témoin moom nga joxaat sa mandataire sa mandataire jox ko sa plénipotentiaire jour bu demee tribunal bu ñu contrôle vote ci PV bii la ñuy sukkandiku su ñëwee ñu ne Diomaye amoon na fa 180 ñu xool ne PV ba nekk tribunal 150 dafa nekk sa plénipotentiaire day xool daal ne amal sama PV bi ma indil 180 ci nekk kon yaa am problème. léegi président tribunal bi moom day gérer loolu Mame Moussa ñëwoon na boobaa day xool bala muy annulé bureau bi dina la waxoon un trois cinquième des PV bu fekkee méngoo na PV bële day am problème mais PV bi dans les normes wul am PV ndax dañ koo kase def ci lépp kenn wut ko ubbi en tant agul tribunal voilà beneen sama am bu dee bëgg naa gis naa incident ma signalé ko tey ñii mel dañ maa kii am naa sañ sañu woo agent assermenté maanaam police wala gendarmerie nekk foofu pour mu intervenir par rapport ak samay samay samay euh, revendication ci biir bureau waaw foofu noonu d'abord bala ngay woo agent mante essayel nga woo sa mandataire mu ñëw parce que yow am koo xamante ni mooy sa hiérarchie sa supérieur hiérarchie mooy sa mandataire mu ñëw ngeen waxtaan ba fekkente ne moom mënu ko gérer moom mu woo en tant que mandataire agent assermenté ñoom ñu ñëw intervenir. merci. ah man question boobu nag sama xalaat laa tontoo de sukkandiku ma ci dara léegi yow fekkente ne du noonu. agent yi waaw ñi ñu bindee PV. waaw ah. ah. dañu bind waaw jox waaw ah. ñoom mais nañ seen seen seen PV préformant boo xam dañ ko si uh-huh. ngeen waxtaane ko wala ngeen dem nga xam ne moo fi teewal force de. moom mu constaté bind rapport mais les ordres du liñ ci bëgg a waxaat tamit mooy. mais dàq moom exception lay doon ci bureau. soit représentant parce que moom mënul dàq représentant CEDA représentant bi tam pour mu dàq leen exception lay doon cas yu lay doon moo tax incident boo amee mën nañ ko waxtaane ba juboo ko n'est-ce pas et avant mi àgg ci loxo police tamit comme lépp rek mën nañ ko waxtaane ba juboo ko parce que incident yu mineur lay doon n'est-ce pas te bi tamit ñu am confiance ci ñi nga xam confiance ci ñi nga xamante ne ñoo ko représenté administration la la la plupart ay enseignants lañuy doon ay ay élèves donc amuñu benn intérêt vote bi yàq te ña fa dem ñëpp tamit pour vote bi jaar yoon la moo tax ñun bu ñu laayante biir rek je pense que mën na noo mën na noo am élection bu jaar yoon te te non seulement vote bi du arrêt mais du ndax kenn ci bureau bi.